مع الأبرار عسير وإني زاهر وفقير أموري لو فوت والخلق تيم غريبا لنا الأهدار وهو مسير عليك صلاة منه جل مسلما ما لا وعلى آله وصحبه سبحانه التواب والتمكين أما بعد فيا أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكين gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sangam sang yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko xiwal ak mucc mu ci saxabaam ñoo ngi leen di nuyu yéen mbokk yi nga xam ne yéenay dégg suñu kàddu ñëpp xalifa si Ali Seck muy sëriñ Cheikh Rahmatullahi Seck moo leen di nuyu yéen gan ñu ñi bàyyi ko ca kilifa bu mag Cheikh Sidi Al muy sëriñ Cheikh Mouhamed Mbacke si ak mu àndal ñëpp. Euh, sëriñ bi nee na mu ngi lay nuyu di la siyaara di la mastawu coono wante mu ngi lay balu àq itam ndax coono yi xam na ne li ngay dox lépp ci ndigal nga ko dox wante teewul mu ngi lay mastawu coono di la balu àq itam ci coono yi wàcc di la siara siara ba gën a rafet ci siara yi di la dalal it dalal ba gën rafet ci dal yi di la wax ne fi sa kër la ñaari yoon ndax danga fi dëkk yaa ngi ñi nga andal ñëpp ba noppi dellu fi dëkkaat ci yónni gi nga xam kilifa gi yónni na la ko fi nga nekk ndawam kon da nga bokkoon ak ñun démb kër gi di sa kër dëkk bi di sa dëkk nga teew si fi mu di sa dëkk waaye nga teew si fi tey ak doxinu taalibe bu jógee ci Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar yàlla yàlla gërëm say tànk lépp yaa ngi ñu nga àndal di la xamal ne itam mbooleem rakkam yi nga xam ne bokk na ak ñoom Cheikh Seydina Aliou Seck ñëpp teew nañ ci bis bii ku mel ni njabootu Cheikh Mamadou Amine mi nga xam ne mooy taawu Cheikh Seydina Aliou Seck njabootam lépp a ngi ci barab bi njaboot ak boppam gi nga xam ne moom bàyyam moo toppoon deuxième xalifa Cheikh Seydina Aliou moom itam njabootam lépp ci barab bi Cheikh Sarif Younousa mi nga xam ne moo doon ñetteelu Cheikh Seydina Aliou Cheikh Mouhamadou Jidal Seck nekk ca bopp ba moom itam moom njabootam ñoom ñëpp ñu ngi ci barab bi njabootu ñeenteelu xalifa Cheikh Seydina Aliou mooy Cheikh Alhaji Yacine Seck xalifaam Cheikh Alhaji Ahmad Bamba Seck moom it mu ngi ci jataay bi ànd ak mboolem mi rakkam sëriñ Cheikh Daaro ngi fi ak rakkam yëpp di la xamalit ne njabootu juróomeelu xalifaam muy Cheikh Mamadou Bassir mi ngeen bàyyi ko ci Touba Saloum sëriñ si Aliyu di xalifaam nekk ca bopp ba moog rakkam yi ñoom ñëpp ñu ngi ci jataay bi foofa ngeen bàyyi ko ñu dellu àndaat ak yéen ñëw fekk si leen fii ci dëkk bu mag bi nga xam ne mooy dëkk sëriñ si Aliyu Seck euh, mu mel ni niki noonu njabootu Cheikh Alaaji Asan doom la ci Cheikh Seyna Aliou ñoom itam ñu ngi ci barab njabootu sëriñ Moussa Jama moom dom la ci Cheikh seyna liw njobotam gangi fi njobotu serigne abdourahman momit dom la won ci Cheikh seyna liw momit njobotam mu ngi fi njobotu serigne khawsu mi nga xamne mo don ciatum serigne bi mi fi bayiko barki dembu momitam khalifa mu ngi fi serigne Cheikh daru ak rakam yeb mo melni ni seyna liw gi ñep tewé ci nañ bis bi ñew ci wote bi waye ñew ci ngan gi nga xamne serigne Touba mo ñew diko ko mu mel ni itam euh, bu ñu demee ci kilifaay aada yi maire bi ñëw na fi ak ak soyam su préfet ngi fi ak préfet ñoom ñi nga xam ne ñooy ndawal gouvernement bi ñoom ñëpp teew nañu mu mel ni suñu bàyyi ko ci loolu taalibe yi nga xam ne ñoo àndoon ak Cheikh Seydina Aliou Seck doon ko liggéeyal gannaaw bu mu jotee ngërëmal Serigne tubaa ñoom ñëpp seeni doom ak seeni xalifa ñu ngi ci jataay bi ko melni ni alaaji awal bo lonkan terbiya Cheikh Seydina ali lawon woon serigne sëriñ Babacar Seck njobootam ñu ngi fi ak rakam yeb ko melni ni Majul de cham terbiya Cheikh Seydina ali lawon njobotam ñu ngi fi ko melni ni tam ci serigne Bigué bu makka ñi ngeen mo ñeuk a tas këram fekk Seydina ali sek tayba terbi ci mom andon nag mom demoon gannar fekk fa serigne Touba itam ak njobotam ñom ñep ñu ngi ci bis bi mo melni ku mel ni Cheikh Mouhamad Lamine Baara ca na xalifaam Alaaji Abdoulaye Seck moom it mu ngi fi euh, taalib yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi ku lim da ngay juum wante dëkk yi nga xam ne ñu ngi ci gannaaw dëkk bi di Daaru Wanaar gi euh, dëkk bu mel ni Kër Saafa di law bi nga xam ne boromam ci tërbiyaay si naali bi la bokkoon moo sañ ci dëkk ba ñu di ko wax Kër Saafa di njabootu dëkk ba yëpp ñu ngi ci bis bi dëkk bu mel ni Makka ña ngeen comme ni ma ko waxee. njaboot gi yëpp a ngi fi ndax Seydina Aliou Seck moo sañ ci dëkk ba ndax tam si sëriñ bii ga ma beesalaat dëkk ba te nekkoon fa ak ay rakam mu ngi woon ci gannaaw Seydina Aliou Seck mu mel ni soo demee itam dëkk bu ñuy wax parax njaboot ga yëpp a ngi fi moom itam dëkk la woon boo xam ne njaboot ak Seydina Aliou rek fi nekk ak dëkk bu ñuy wax ndaama njaboot ak Seydina Aliou dëkk bu ñuy wax makk kër Abdou Khatia njaboot ak Seydina Aliou Bamba Moussa Minna Mbaye Ndakaar ku lim dëkk yi da ngay njobootu dëkk bi yëpp a ngi fi fu mel ne ki taaleen Abdalaay Lonkaan ak Abdalaay ak Abdalaay gële ca kaw ak mboolem dëkk yi dëkk yi mel ni Daaru Xuddoos ak Daaru Marnaan njobootu dëkk yi yëpp a ngi fi kon sëriñ bi daal mu ngi sant euh, ba yàlla dogal bis bi am tey euh, loola nag xam ngeen ne ngan gi mën nañuy wax ne njëkkewul fii ndax sëriñ Fallu Mbakke ñëw na fii ci Sinaaliw fekk ko yidd mu fanaan moom ba asamaan set ba sëriñ Fallou ñëwee dafa taxaw ci buntu kër gi ak fas wi wax ndaw li na ko waxal sëriñ bi ne ko maa koy nuyu ndaw li ñëw wax si naaliw ne ko am na ku lay nuyu mu ne ko kumu ndaw li dellusiwaat ne ko si naaliw nee na yow ay kan mu ne ko man maay Fallou doomi sëñ Touba waaye Fallou doomi sëñ Touba rek léegi foofu sëriñ Fallou dal di wàcc sëriñ bi dal di ñëw daseeg moom dal di ko fekk ci kaw fas wi tatafu ko ànd ak moom wàcc ànd ak moom dugg ci biir wax nañ ne néeg bi mu njëkk a moom daf ko ne néeg bi moom mooy sama néeg bi may dalal nit ñëpp mu ne ko ñaareelu néeg bi mooy néeg bi nga xam ne mooy lenn ci nit ñi laa fiy dugal dugg ca ñetteelu néeg bi ne ko néeg bi nag mooy néeg bi nga xam ne ci laa di gisee sa way jur wa Xaadimu Rasuul si Ahmad Bamba ak yonent bi ak yàlla waaye néeg bi sëriñ Fallu ci ngay daal ne boobu fa la sëriñ Fallu daal fanaan fa ba asamaan set Cheikh Seydina Aliou Seck daal di wax sëriñ Fallu ne ko sa baay moomu ñuy wax xaadimu rasul si Ahmad Bamba ndax xam nga ne mooy sama wasila sëriñ Fallu ne ko waaw mu ne ko Fallu ndax xam nga ne mooy sama wasila mu ne ko waaw mu ne ko suma wéroon ne man nangul na ma sama njébbal sama xeeti jàmm yàlla yi may def yëpp ma rafetalee ko sama taalibe waaye fàllu mu ne ko Mbàkke mu ne ko sa baay mbooleen pays yàlla yi biig fu ne teg naa fa sama tànk di ko laajte fu ma ko teg bu ma ko laajte ñu ne ma jàll na mu ngi ca kaw Fallu mu ne ko waaw mu ne ko sa baay de xaw ma ndax day wala day loolu Cheikh Seydina Aliou daraan toog mbooloo mi toog xam-xam bi bari na ragal yàlla gi bari na waaye daraan wax ne ma sëriñ Touba day yàlla wala ndax day yonent bi loola nag indi na ko ci benn bayitam ndax dafa wax ne man dalla ko mislahu fi sal anaami duri fa tarkama xaalahoo yaa moxtafi sima mi ci mbindi fi yàlla yi ku leen ci tegtal ku mel ni Serigne Touba xamal nee na jooje wax bàyyi ko yow mi xam ne da ngay xëñtu sama wëllëre maanaam su fekkee da nga bëgg a waayoog man suñ tuddé nit tudd serigne Touba néna lay tontu la moy jooja wax bàyyi ko rek kon dafa melni ma ngi bëgg a ci wax ji e, kon ñu jox suñu bàyyi serigne Cheikh daru mu continuer waxtaan wi ndax kitab bi nga xamné mom la suñu bàyyi serigne Ahmad Bamba Dial bind mom lañu ko jox pour mu léral li tax itam xam ngeen ne 1903 la serigne Touba dem gannar 1904. lako fekk sar saral fekk serigne touba amagul wirda Maaxoos bàyyi bayina mbolem wirde yi jàpp ci alquran kesse ne yonent bi dako jox alquran ne ko jàpp ko mu tey alquran ni njàcceer bo xamne dafa jox gumba aw yet ne ko téyel gumba bi tey yet bi diko yomat ni gumba ni njàcceer bi di wamate gumba bi non la alquran di def ci mom diko dimbalé dimbalee kan bil kitabi mas bi yeddil qaa'idil basiiril muheeni wa man yakun fi jamihi dahri bihi fa salika min ahlil wilayat alquran mhm. mu mel ni dafa wax ne alquran mooy loo xam ne soo ko jàppee sa giru dund te bàyyiwula ko suñuy ñu lim borom wilaaya yi bu ne nañ la ca boole booba mu ngi ci alquran muy 1904 bi si naaliw demee nag mu li jaasal ko wirde yëpp wirda xadriya saasali ak tijaaniya ndax ma moo ne lii xutta maa faaxa bihi jaylaani حله ردوان لسي الأهلان من إلي قدت ما به أبو حسن فاق بخدمة النبي جد الحسن من تممت لي بما به تيجاني فاق وكنت لي بالمرجاني mu mel ni kon widde yi yëpp sama borom li jaasaal na ko ko Seydina Aliou dem mu xam ne li jaasa salaatu faati yi moo koy àggali wirda salaatu faati yi moo koy àggali mu yëkkati wirda wa dal di ko jox loolaa tax wirda salaatu faati yi moom la joxoon Seydina Aliou la taxoon mu jox ko ko it mooy jamono boobu booba bàyyi na mbooleem wirde yi jàpp ci alquran te Euh, joxaguñ ko wirda Maaxus ndax 1905 lañ ko jox wirda Maaxus te 1904 la Sinaaliw dem ci moom kon loola moo waral mu bees mu jox ko wirda woowu wirda woowu nag bi mu ko ko joxee da ko jox lijaasa ba Sinaaliw téere bi ñuy wax xarsu balaa nga xam ne fi mu toll woon ci sëñ Tuubaa fu rëy la téere bi dégg naa ci sëriñ xawsu di doomam mi fi bàyyi ko barki demb mu tuddee ko sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ne bu ko kenn wax sëriñ tubaa buñ ko wax Ahmadu Mbàkke buñ ko wax ci turi Serigne Touba yi ben lu khutbul khaws khutbul khaws ben benn bis ñu laaj ko ne ko Serigne Aliou sek lan moy khutbul khaws mu ne khutbul khaws de moy ki nga xamne yawmal qiyamati akbar day nek diggante aljana ak safara cham moy lako safara di fete aljana fete ko ndey jor mu taxaw neena yàlla borom jam ñi nga xamne dafa am lu mu waxoon ci alquran wax ne ku def lu bax ma def la ni ku def neneen ma def ni neena yàlla taxaw nak paree def la mu bëggoon a def nee na xutbul xawsu yàlla jox na ko martaba bu toll ni càmmooyam bi su ko uppee safara juróom-ñaari bunti safara yëpp dañoo daal di fay nee na kooku mooy xutbul xawsu tur woowu nag moom la jël tuddee ko caatam mi muy Serigne Xawsu Laay Seck Serigne Xawsu Laay moomu dafa wax ne dafa wax ne si naa lii téeréem bi ñuy wax xarsu mu ngi ko wéyee ci diggante safa ak marwa seetal ku dem di aj dem ba ca madinatu munawara ci raw ci ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni nga ko jegee bàyyi Serigne Touba njaarim diko tag ci qasida bobu waxuma len way lamu wax nan man dall misluhu fi sal anami duri ku len tagtal ci minni fi yàlla te xam ngeen ni yonent yi ay mbindeef lañu aqtaab yi ay mbindeef lañu nujabaaw yi awtaad yi ñëpp ay mbindeef lañu malaika yi ay mbindeef lañu malaayikatul muqarraboon muy jibril ak mikael ñu mën doon ak yeneen malaika yu dul ñëpp ay mbindeef lañu te Serigne Touba seyna liw neena ci minni fi yàlla ku ngeen ci nat ba tagtale ko wala ngeen diko dendel ak Serigne Touba lay tontu la moy jojja wax bayiko kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëgéen allahu a'lamu haysu yaj'alu risalata allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annasi wassalatu wassalaamu ala asrafi al anbiyai walmursalin xayra xalaiqi ajmain سيدنا ومولانا محمد الهادي الأمين وعلى آله من كل عيب سالمين وأصحابه الأصفياء المعتدين الأكملين وبعد إخوة الإيمان والأخوات الحاضرين أيضا الضيوف الكرماء المنسلين من أكرم وطن من مسكن غير القديم أي غير القدام حين يقول قدمني الله على القدام بالمصطفى مثبت أقدامي وفي شالك الوطني قال وجهله ربي مننا معجلة جالبة لمنن مؤجلة قادرتم من تلك الرحاب الميمونة إلى موت مريده الصادق وحبيبه الكريم الموافق سيدنا وشيخنا العاج علي مسك ابن علي فودي عليهما رحمة ربنا الصادق نرحبكم بقلوب ملآنة بسرور وابتهاج ونقول لكم أغلا وزغلا يا خير ضيوف من خير مرسل ومن خير موطن أداهك كديفي قبل إنسال رعله ويغصب عندي وسم الجديد ولست بقوال إسديف حل بي ترحل فإن الحي منك قريب نسلتم في دار المجاهد الأكبر وسنديد الأبرر محو الخائفين وملجأ الضعفاء واللاجئين هو الذي قل نده في الأولين والحاضرين والآخرين قد احتل عند رجال الله جميع المناسب المفاخرة من تقوى الله وجهاد النفس والهوى والشيطان وحفظ القرآن في صباه والتبخر في جميع العلوم والعمل بمقتضاها والعفة والورع والاجتهاد في جميع ما أوجبه الله عليه والصجاعة والجود الغسي والعلم والصفح والقناعة والشهد والمحبة في الله ورسوله وبذل جهوده في طاعة الله تعالى كل وقت وحين في سر والعلانية والنيل الأرزاق الكثيرة والصبر على سر وجعر إلى قطب الرها وقوس الورى ورجاء العالمين ومرأة الصالحين وعلماء العاملين وقدوة النجباء والصاهدين مهو القائدين والسين العابدين مولانا وسيقنا أحمد بامبا المكي ساده الله رضوانا وعلوا بجاه مقدومه صلى الله عليه وسلم ومصداقه قوله في قصيدته وكل لك جعلت أموري أج أملي بخير سنيا لياد خير من وجدا ولقد صدق أي سيدنا علي بسيقه وسيده وأنسله بمكانه الذي أنسله الله حين يقول أيضا من دلكم مثله في سل أنام درك فترك ما قاله يا مختفي الشمم ولقد أودع لنا نعن معاشر المريدين المتهلقين بأسيال شيخ القديم بأن لنا الفوز وسعادة الأبدية في قوله لم ينهنا أو لم ينهنا وما كل ذلك صحيح لم ينهنا مقصر توابع العالم أسن هنا سمحنت فاعبدوا السمدا وفي قوله براء سوى تعلق بسيقنا من فتنة يوم وفتنة هنا وخير ذلك من منصوماته ومقالاته وأفعاله تدل لنا بأن سيخ القديم هو الملاس القويم والملجأ العسيم من لاس إليه أو من لاس به نجا وسهد زهادة لا سقاوة بعده fa jasaahu llahu daarayni tariqata wal uquwata xayra jasaihi bi jaayi cheikhi alqadim wa maxdumihi sallallahu alayhi wa sallama bi alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ahsani ila yawmi din wa salaam alhaaji ahmadou bamba dial aqukum wa muhibbukum fillahi wa rasulihi wa qadimihi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci diina ak ci yar njaboot gi ci lislaam ba yàlla boole ko sangam bu baax ba xaadimu seex naa Seex Ahmad Bamba lépp jébbal ko ko mu ànd ak seede yoo xam ne seede yu wér wér la li ngeen ci jot a dégg sax xam naa bari na waaye loolu la wane ci biir xitaab bi ndax xam le ne Seydina Aliyu Sëñ Tuubaa moo doon léppam tey ak ëllëg euh, moom Seydina moomu waxee na Sëriñ Tuubaa ci biir xitaab bi waxee na njaboot gi ci biir xitaab bi waxee na it bépp jullit boo xam ne Sëriñ Tuubaa nga yaakaar ci biir xitaab bi waaye bayit yooyu yëpp di nga xam ne moo ci mën a nekk yóbbal ñun ak yenn ak way tekkili li tekkili yi yëpp mooy li Seydina Ali wax Sëriñ Tuubaa ne ko lam yen huna aw lam yan hana maxsara tawaabeen alami asan huna suma hanat fax bu doo samada mooy képp koo xam ne Sëriñ Tuubaa moom nga yaakaar boo fi ci gannaaw Sëriñ Tuubaa gii ne la wóor ne lépp loo xam ne coono la ak fitna la ak lépp loo xam ne natt suñu borom ba ci àddina ak ci àllaaxira doo dajeeg moom loolu de doy na yaakaar ci lépp lu mu munta doon te xitaab bi ni ko sëriñ bi joxee nii sëriñ mo sëriñ Moodu si ak délégation bi euh, ñu may ma tuuti rek ndax Seydina Ali dañ wax ne ñeent fukki kaamil la bindal xaadimatu Seexna si Ahmed Bamba ci diir bi ñu ànd te Cheikh Abdoulaye Lahat bi nga xamee ne mu ngi def daaraay kaamil kaamil yi ñu fa bind yaakaar naa lu bari ci jëw jëwdin ya seen kaamil yaa nga fa visité nañ ko mais gisuñ fa kaamil du Seydina Aliyu kon kaamilu Seydina Ali yu bëri yooyu fan la réeree loolu moom moo ma jaaxal te wax nañ ne sax teg na ci juróom-ñaar fukki xaaj moo tax nag li Alaaji Cheikh Ahmadou Bamba comme da ngeen tonkate ñu ne man gan nga fekk ko ca la ko neex mais bu doodoon loolu dañ koy firi ndax loolu la ñu joxoon ndigalam léegi sëñ bi dafa wax ne lii nii daf koy teg ci seen loxo ngeen yóbbuloo ko ngeen boole ko ci exposition yi nga xam ne ñoom ngeen ay doxal lu jëm ci màggalu Tuubaa gi da ko seedal جار جاري سيدنا علي أكجبم متى ما والتي بوف بني نبتتان لا من آزاري أو نبتتان عن آزاري سيدنا علي ينسيك وإن جاساته لأن لي أي بيتم لا يوخنا موقع تالي لي موي قتاب بيغا خمنا مملا رون جانج ليغي موي قتاب على الشيخ أمد بامبا ياسين بن في تروم تي بيني موي الحمد لله تيامنا العلوم سيدنا علي موقع تالي bii nii mooy xarsu la xarsu la si bi nga xam ne moom nga dégg Mor abadan doon fi wax mu ngi noonu tayel bii nii way way Seydina Ali ba tey mu ne wa asjudan linaasi tayel bii nii mooy wakil bi nga xam ne jàng naa ay bay ci xitaab bi nga xam ne moom Seydina Ali moo ko taali mu ngi noonu tayel bii nii ba tey way Seydina Ali la tayel bii nii benn leetar la boo xam ne ca la jëlee wird wi de wird tiijaan yi lijaasa bi kayit bii moo koy seeti ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul jaara wérde wi baxee koon ci rasulullahi dégg nga jaar ci Seexuna si Ahmad Tijaani ñëw ci xaadimul Seexuna si Ahmad Bamba ñu jox li jaase bi xaadimul Seexuna si Ahmad Bamba ndax booba maaxoos bi comme ni ngeen ko abadan déggee booba ci doogul mooy bii nii yii nag dañ bëgg ngeen boole ko ci liggéey bi bu baax a baax comme da ngeen tonk euh, loolu mooy kàddu yi nga xam ne kon ñun moom lañ ci moomoon war leen koy jox lañ ca yokk rek mooy Seydina Ali euh, war na wax nañ ne dem na ci Serigne Touba ni nga ko abadan waxee 1904 kon ànd naag Serigne Touba ba ba Serigne Touba de làqu jamono 1927 man ngay calcul bon li mu at yooyu ñaata la nga xam Seydina Aliou lan la ànd ak xaadimul Seexuna Seex Ahmad Bamba gannaaw ga nag moom dund na fii ci Daaru Salaam Wanaar lu toll fukki at ak benn ci gannaaw boo xam ne sanc na dëkk bi mooy 1930 dund na fukki at ak ben sogam moom itam ay borom 1941 kon tarikh yo yakana bok na ci nga xamne da ngeen ko soxla ci li ngeen xamne yeen yéen koy dox insha allah alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wasalaatu wasalaam ala asrafil al anbiyai wal mursalin sayyidina wa maulana sayyidina wa maulana muhammadin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima sëriñ bi nee na bokki moo ngi nuyu ñëpp di sant sun borom wa taala cant ko xam ne amut ak xéewal gii nga xam ne. ndaxte kat kay xéewal gii nga xam ne. yàlla baaxee nañu ko. yàlla sunu borom baaxee nañu ko tey jii. lu nu war a sante yàlla la. lu nu waree sante sunu borom subhanahu wa taala bu baax la. ndax arab dafa wax ne. ndax kat arab dafa wax ci ay waxam ne. ar rasul. ar rasul. bi qadri mursili. bi qadri mursili. nee na ab ndaw. nee na ab ndaw kat. lu mu mën a doon. lu mu mën a doon. mu ngay jataayoo jataayab mu ngay jataayoo jataayab ka nga xam ne moo ko yónni yónnent boobale kon ñu sant yàlla kon nag ñun danoo war a sant suñ borom ba mu baax bi nga xamee ne Serigne Touba bi nga xamee ne Serigne Touba si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo fi ay ndaw moo fi yebal ay ndaw fii tey ñu fekk fi ñu ñu fekk suñu ci dëkkub Seydina Ali Seck bu tedd bii te ñun ñu waroon a fekk te kat ñun ñii ñu yor sunuy oto fekk leen fa nu nekk. loolu war sant yàlla bu baax loolee waree nañ ko sante sunu borom bu baax a baax. waaye nag ñu jiital ci waaye nag ñu jiital ci loolee it. cant ga. cant ga. sunu xalifa. sunu xalifa. Cheikh Cheikh Alaaji Cheikh Ramata Seck. Serigne Cheikh Alaaji Ramata Seck. ndax gannaaw yàlla. ndax gannaaw yàlla mi. wolof moo wax ne. wolof dafa léebu ne. coy kat lëg bu lekkee doom bu lekkee doom baax. nee lëg bu lekkee alom moom ci boppam. war na koy gërëmee coow war na koo gërëmee coow yi ndax moo ko cob ba mu wadd mu jël. ndax. ndaxte kat. gannaaw yàlla. gannaaw yàlla. ci gannaawam gu sedd. ci gannaawam gu sedd. ci xolam bu yaatu. ci xolam bu yaatu lool. yéeneem ju rafet. yéeneem ju rafet lool. ci lañu yàlla mayee lañu sunu borom mayee yoon wu rafet wi tey. jataay yi yàgg nañ fi. ndaxte kat jataay yi yàgg nañu fi lool. seeni borom am pas-pas lool. seeni borom am pas-pas lool. bëgg Serigne Touba lool. bëgg Serigne Touba lool ba jaxta waaye lii. waaye lii nag. moom Serigne Cheikh Ramata. moom Serigne Cheikh Ramata mii. moom la ko yàlla jagleel. moom la ko sunu borom jagleel. moo tax ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax. moo tax ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax. tey ñaan yàlla it. tey ñaan suñu borom it. jataay bi yàgg lool. jataay bi yà na ko sunu borom yàggal lool. te lewetal ko ko lool. ci daraja Seex al Xadim ci darajaay Serigne Touba si Ahmadou Bamba darajaay sëñ Seex sëñ Seex du Moxtaar darajaay Serigne Sidi al Moxtaar moom mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba moom mi nga xam ne kat tey jii moo fi toogal Serigne Touba si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te moom mii mu nekk taalibe Serigne Sidi Sidi Seydou Moxtaar te it moom mii mu nekk taalibe Serigne Sidi al Moxtaar te ba mu fa demee daaw te kat ba ca yoonam wa daaw fekki sëriñ Sidi El Muxtaar ca fa mu ne dem siyaare ji ko dem siyaare ji ko la ko sëriñ bi waxoon loolee sëriñ bi waxoon ko muy kàddu yu rafet yooyu seen jataayab tey bii seen jataayab seedeel na ne seedeel na ne kat sëriñ bi la mu waxoon rek mu nga ca sëriñ bi ca la mu waxoon ca loolee rek la nekk ba tey ji ndax noonu na ko nangul nañ la sa sa njébbal ndax noonu na ko kat yow sëriñ Seex nangul nañ la sa njébbal ni ko sëriñ Tuubaa ni nangoon Seydina Aliou ni ko Serigne Touba si Ahmad Bamba nangu la xon Seydina Aliou sekk na faana la bi barakaati moo waral di gendeeku muy ko gendeeku moo waral googee gendeeku mu leen di gendeeku di gendeeku Serigne bi di gendeeku Serigne bi di gendeeku njaboot gi di gendeeku njaboot gi yebal fi délégation bu tedd bi yebal fi nag bis ni ki tey jii délégation bu tedd bii ngeen ngeen gis tey waaye tànk yi yal na nekk suñu jokkuwaay waaye tànk yi ngeen dox kat yal na nekk suñu jokkuwaay abadan ci saahir ak ci baatin ci saahir ak ci baatin ci darajay Serigne Touba darajaay Serigne Touba sunu yaakaar ja. darajaay Seydina Ali mi ngi darajaay Seydina Ali Seck. mii ngeen fekk si. mii ngeen fekk si tey. ah ñun sant rek lañ ci am nag. ñun kat sant rek la ñu am ci waxtaan wi ñun. ndax liñ waroon a wax. kat lu ñu waroon wax. suñu suma doom Mouhamadul Amine. sunu sa doomam nee na Cheikh Mouhamadul Amine. wax na ko. suñu rakk Cheikh Serigne Cheikh Darou Seck. ak sunu rakk Serigne Cheikh Darou Seck. wax na ko. wax na ci rafet. kon li ñu sant rek moom lañ ci amoon ñun. kon nag ñun sant rek lañ ci waroon a def. waaye waaye it xanaa dolli rek xanaa dolli rek gën a xamal Seydina gën a xamle Seydina Aliou Seck moom moo da kan moom moo de kan ndax moom ndax moom kat jëmm la joo xam ne jëmm la woon ju xam ne ñu bëri dañ ko réeré woon ñu bëri dañ ko réeré woon lool xanaa sant Serigne Touba xanaa sant Serigne Touba rek moom mi ñu wan nañ moom mi ñu wan ne Ah, Seydina Aliou Seydina Aliou Seck wali yu la wali yu Seck wu mat Seck la moo ñu wax moo ñu ko wax loolu moo ñu waxaloon loolu moom Seydina Aliou moom Seexul Xadim sax Ahmad Bamba ndax bari na boo waay bëree xam-xam ndax bari na kat boo waay bëree xam-xam nangoo jaamu yàlla nangoo jaamu yàlla baax lool baax lool sellu lool sellu lool sàmm lool sàmm lool bëri xam-xam lool bëri xam-xam lool te fekk doonu la waliyu te fekk kat doonu la waliyu waaye waliyu lu jafe-jafe-jafe la waaye sëriñ bi nee na aw waliyu lu jafe-jafe la Seydina Aliyu nag Seydina Ali Seck nag Sëriñ Tuubaa moo ñu xamal ne waliyu waliyu kaamil la Seexul Xadim si Ahmad Bamba moo ñu waa moo nel ne xamal ne waliyu kaamil la woon bu mat sëkk waaye ñun itam waaye ñun itam ñii Seydina Aliou Seydina Aliou Seck moo ñu xamal Serigne Touba moo ñu xamal Serigne Touba si Ahmadul Khadim ndax Serigne Touba Seydina Aliou ndax Serigne Touba si Ahmadul Seydina Aliou Seck woon joo xam ne jëmm la woon joo xam ne ña ko xamoon ña ko xamoon nawuñu woon ku moom nawuñ woon ku dul moom mukk bëgguñu woon ku dul moom bëñ bëgguñu woon ku dul ku moom yaakaaruñ woon ku dul moom boo àndeek ñoom nag boo àndeek mu daal di takkaayu mu daal di takkaayu fab léppam fab léppam jébbal ko Serigne Touba jébbal ko Serigne Touba Cheikh Ahmadoul Khadim kon ci lañ ne kon ñun ci lañu xamee ne Serigne Touba bokku ca Serigne Touba bokkut Serigne Touba bokku ca Serigne Touba bokkut ci de ndax Seydina Aliou ci dëkkam bii ndax Seydina Aliou ci dëkkam bii da daaru wanaar di salaam wanaar am na fi ay ay ay karaama yu bëri yu mu fi def. am na fi ay karaamaat yu bëri yoo xam ne def na ko fi moom Seydina Aliou. karaama nag buñ ko waxee. karaama nag bu nu ko waxee. moo da loo xam ne aw wali yu da koo def. moo da loo xam ne aw wali yu moo ko jëfal ko ko. su ko ab yonent defee. su ko ab yonent defee nag. mujisaat lañ koy tuddee. mujisaat la ñuy tuddee loolee. moom mi Seydina Aliou nag. mu mu ne Seydina Aliou nag. def na fi ay karaamaat yoo xam ne. def na fi ay karaamaat yoo xam ne. gune yi sax xam nañu ko. gune yi sax xam nañu loolu. ñëpp dégg nañu ko dégg nañu ndax ba ca jàkk ndax ba ca jàkk mooy. sama bay baabu ceeboo. sunu maam baabu ceeboo. taalibe la woon bu ko jege. taalibe la woon bu jege woon sëriñ bi lool. Seydina waxoon na ko ne. ne Seydina Ali dal di waxoon sunu maam ceebu ne ko. baabu ceeboo baabu ceeboo ne ko. ne ko tam xarit nga fay jógee. ne ko tam xarit nga fay jógee yow baabu ceeboo mii. waxtu wu tam xarit dikkee waxtu wu tam xarit dikkee rek mu yeew lool mu yeew lool waaye bu tam xarit jeexee waaye bu tam xarit jeexee mu dal di kulëng mu dal di kulëng na déwénati rek na déwénati rek waaw déwénati rek wa waaye noona la demee de. waaye sëriñ bi nee ne noonee Seydina Ali Seck waxee woon ko wallaahi na la demee. xam na ko ma nettali ci njabootam ne ma. nee xam na ko ko nettalil moom sëriñ bi ci njabootam ne ko. baabu ceeba keroog ba ma wàcc liggéey. sunu maam baabu ceeba keroog ba muy wàcc liggéey. booba ñu ngi jàng ñaan ak tam xare. nee booba dee ñu ngi jàng ñaan ak tam xare. kon jaarama ak Seydina Ali. kon jaarama ak Seydina Ali Seck. jooju waay amul jooju waay amul morom. jooju waay amul morom. xamoon na yaqin it. xamoon xam xam lam xam ca boromam xam lam amoon ca boromam subhaanahu wa taala ngir ki mu wéedu ci gannaawam ngir ki mu wéedu ci gannaawam muy sëriñ Tuubaa muy sëriñ Tuubaa ndax maam baabu ceebu moomu de ndax sunu maam baabu ceebu moomee de mayoon na ko kër ak xàjjana mayoon na ko kër ak xàjjana bari na bëri na góor yàlla goo xam ne bëri na góor yàlla goo xam ne mu ngi jaamu yàlla mu ngi jaamu yàlla waaye xamul ne sax dana am àjjana waaye xamul ndax moom dana am jaam àjjana wala du ko am waaye ko am àjjana waaye ko am àjjana ba noppi bara maye kër ak àjjana bara maye kër jaram ñaa Seydina Ali Seck <laughs> ah. <laughs> eh, gas na ne sëriñ bi ne tubaarikàlla gas na ñaar fukki ten ñaar fukki ten ak ñent ak ñent yo xamne ten nguro nguree fut la yo xamne ka ten nguro fit la ñiko ko xamul ñu leral ko ci olof moy ten bo xamne ya ko jàjj ten bo xamne ya ko fakal sa bop tambalel ko sa bop ba bënn ko ba bënn ko bokkut ak kamb guñ wax bokkut ak kamb guñu ki te masi nit bokkut ci de ñaar fukki ten ak ñent ne sëriñ bi neena ñaar fukki ten ak ñent yo xamne ne Sidna Aliou Seck moo ko gasal boppam ci bir salum ak ci bir salum gi ak côté Gambie ah, waaw ba nga xam ne mooy teen ba ko fukkeel nee ba nga xam ne teen ba nga xam ne moo fukkeel teen yooyee mu nga woon màkka na mu nga woon màkka ñaamina moom it def na ci karamaat yu rey nee sëriñ sëriñ bi nee na Sidna Aliou dafa def ca teen booba karamaat yu rëy rëy ndax dafa wax ne ba nga xam ne dafa bëgg a gas teen bi mais bi nga xamee ne waaj na ngir bëgg a gas boobee dafa xoo mag ñi ñi dikk dafa xoo mag ñi ñëpp ñi ñëw mu ne leen yonent bi de mu ne leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de bu daan takk bu uh, uh, uh, xare bu daan takk ab xare da daan xool saxaaba yi da daan xool saxaabati rasul ñi ñëw ñu ñëw kenn ku ne wax ko na mooy manee ca xare ba kenn ku nekk daal de jaayante si bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mooy manee ca xare bi mu soog a dugg ca xare ba mu soog a tàbbi nag ca xare ba moom yonent bi mu ne leen mag a gas ab teen mu ne leen mag ñi ma yittee damaa bëgg a gas fii ab teen ma bëgg kenn ku ne wax ma lam caay man ma bëgg nag yéen kenn ku ne na ma wax la may man ca teen ba ñu wax ne ñu wax ne ma Malick Mbaye jiyee satang ku ñuy wax sunu maam maam Malick jiyee satang moo ko njëkk a moo ko njëkk a nuyu ne ko sëriñ bi nuyu naa la ne ko sëriñ bi si naa li sekk nuyu naa la mu ne ko fay naa la mu ne ko fay naa mu ne ko feeskat mu ne ko feeskat de buy hut jaasi buy hut jaasi jaasi wala simiñ wala semiñ res taxut res de taxut ne man maa la res man ne ko man maay res li nga bëgg fay am rek li nga bëgg day am rek wala ma faatu wala ma faatu waaw mu ne mu ne ko jërëjëf ko jërëjëf dama ne maam jaga ba tóor mu ne ko ah. bu bu fees kat di hut sémmiñ nee mu ne ko bu fees kat di hut aw sémmiñ wala yoo xam ne dañ koo kat res taxut res de taxut déedéet res duñ ko càtt déet kenn du hut sémmiñ mu ne ko man maa res li ma bëgg li nga bëgg daa am wala ma faatu rek li nga bëgg dana am man maa la jéemee wala man ma faatu rek waaw hmm? mu ne ko Malick Mbaye li ko wax. nee sunu maam Malick Mbaye li ko wax. moo de nga bëgg. moo de nga bëgg yow xali yi set. dana am dana am. léebu wolof la. léebu léebu wolof la. feeskat xam nga buy fees ne feeskat boo xam ne dafa rey aw nagam di ko fees bu àggee ci céer ya bu àggee ci céer ya daay huti sémmiñ daay huti sémmiñ wala caa wala jaasi wala jaasi di ko cat di ko cat ba mu nooy ba mu nooy waaye ros moom kenn du ko cat kenn du ko kenn du ko kenn du ko wutali sémmiñ waaye ros kenn du ko wutali sémmiñ mbaa jaasi waaw da jël paaka rek dal di dagg mu dagg mooy li ngay wax nii de li muy wax nii ñeneen a tax ñeneen a waaye man loo bëgg rek maa nga ca loolu waaye man wala ma wala rek wala ma faatu rek nee na Njaga Batoor ne ko ñuy wax maam Njaga Batoor ne ko sëriñ bi maa lay nuyu ne ko sëriñ bi maa lay nuyu mu ne fay naa la mu ne ko fay naa la ne ko li nga bëgg mu ne ko li nga bëgg dana am dana am balaa balaa balaa balaa maay roonatu sama néeg yële balaa maa roonatu sama néeg yële di ca dugg danaa la wan ndox danaa la wan ndox ci teen bii man wala dootuma dem sama kër mukk wala man dootuma dem sama kër mu ne ko jërëjëf mu ne ko jërëjëf toogal waaw fekk ku ñuy wax Ibra Kumba Kanji ne bu suñu maam Ibra doomi maam Saaro Xila. doomi sunu maam Saaro Xila. mooy maami Modou Ayda mi. mooy maami Modou Ayda mi toog. ak ak ak Abdoulaye di doomi sëriñ bi. moom itam mu ne ko sëriñ bi maa ngi lay nuyu. mu ne sëriñ bi maa ngi lay nuyu. mu ne ko fay naa la. mu ne ko fay naa la. mu ne li Saaro Xijut. li Saaro Xijut yëpp. maa ci gën a doggu ne. maa ci gën a doggu waaye teen bi. waaye teen bi. ci doj. ci doj. ak dàngale. ak dàngale. ci lañ koy gas. ci lañ koy gas. ci lay ci lay bënn. te te melantu du ci matt kenn te melantu du ci matt kenn jaan du ci matt kenn muy loolu laa warlu muy loolu laa warlu sama bopp xam nga mag ñi bu ñu daan gas teen bu demee ba demee ba jot sa leñ nee mag ñi dee bu ñu daan jot teen bu ñu daan gas teen ba jot sa leñ booba ciment amut booba lii ciment amut danaan do coono lool danaan do ci ñoom coono bu waaye mu ne ko garanti naa la teen bi teen bi du am salañ waaye mu ne ko si naa liw garanti naa teen bi ba keroog ñuy am doo walay salañ du ci feeñ doj ak lépp doj doj rek lay doon ba teen bi bën na ba teen bi bën te te menant du ci matt kenn te menant du ci matt kenn jàmm du ci matt kenn man Kibra Kumba Kanji loolu laa loolu laa man Kibra Kumba Kanji maa ko jërëjëf sëriñ bi ne ko kon jërëjëf ko dama ne Aysata mu ngi fi ne Aysata mu ngi ci bërëb bi to mo ne ko serigne bi nayu naa la ne ko serigne bi nayu naa la bi ne ko fay naa la sëriñ bi ne ko fay naa la mu ne ko mo ne ko daba bi may gasee daba bi ma jël ba fasiyene yéene gas ci tém bi fuma ko teural fuma ko teural genn gor dootu ko fob genn do gor dootu ko fob mu ta paro bu daanu mo songu benen ta paro bu daanu manam xaj bu ma jël mu mat 1 mètre suma ko gasee ba mu nopi damay natat 1 mètre ba mu jeex duma nopi ta paro bu daanu mo jël benen te barab bu daanu mu jëlaat beneen. mu ne ko jërëjëf mu ne ko jërëjëf. mais ba mag ñi ñëpp kenn ku ne la nga war a xaas. mais mag ñi dee kenn ku ne ba nga xaasee la nga war a xaas ba mu mat. mu ne sëriñ bi ne leen jëri jëf. sëriñ bi ne leen jëri jëf. waaye ma da leen xamal ne. waaye ma di leen xamal man si daal li ne. dox ci jaawo ji dox ci jaawo ji ñu di la séen ñu di la séen ba nga raw bët yi ba nga raw bët yi ne taxul borom ah, tollu Aliou ci lax tànk ne taxul loola kooka tollu Seydina Aliou Seck mii ci ci suufu ndëgg mu ne da dox ci ci ci ci ci dex gi. nee sëriñ bi sëñ Naaliw nee nga do do yow jog yow kenn tegu ci am ndox mbaa géej mbaa dex. di ca jéggi say tànk nit ñi dala gis. booba dex la la dex la sax ne mu ngi diggante Màkka Ñaamina ak Baati ne sëriñ bi ne booba de dex xam ne mu ngi diggante Màkka Ñaamina ak Baati mu ne dox ci dex gi ne dox ci dex gi ba àgg Baati ba àgg Baati te sa lax tànk tooyut te sa lax tànk tooyut mu ne loolu taxul borom xàgg ëlliw ci lax tànk ne loola de taxul nga xàgg si sekk mii ci lax tànk waaye li day waaye li day nag li nga xam ne mooy wilaaya li nga xam ne moo de wilaayatul yu góor yàlla yi yéemantee yu góor yàlla yi di yéemantee te di ko rawante yiñ ci manantee niñ ci manantee mooy ren ba déwén ren ba déwén defaloo naqari yàlla defaloo naqari yàlla waxu ko waxu ko nee na Aliou de fii laay waxee ne Aliou fii lay waxee ci sa ci ci nit da ci teg baat nit da ci teg baat waaye diiwaan waaye diiwaanu yàlla ku mu joxañ doo doo képp ku ma joxañ walaay waaw ne Sidna Saka wax léegi ne fi rek la nit da waxe di joxe di wax ci nalu da wax hmm. way bu ñu ci pays yalla hmm. way suma yëkëté sama loxo kenn du yëm kenn du kenn du yëngu amna amna fi yit né amna fi yit na buñ nan eh, wax xaalimati ñaxu ba buñ yi wax xaalimati ñaxu ay doomam ma ngi fi ay ay doomam ñu ngi fi wala ay sëtam ay sëtam yëpp a ngi fi ay sëtam yëpp a ngi fi wax nañ ne dafa am bis wax nañ ne dafa am bis mu Euh, toolam yaatu lool toolam yaatu lool wow lool wow lool mu am benn gorom bu ko songal ab doomam mu am benn gorom bu ko songal ab doomam mu teg ko xaw mu teg ko xaw teg xaw mooy liggéey bu rëy rëy rëy boo bu rëy rëy lool ñu jox la ko ñu jox la ko te mel ni dañ la ko sas mel ni dañ laa sas loola booba dëkk na lool booba dëkk bi rëy na lool kooko topp dëkk bi kooko topp dëkk bi ba mu daj santaane santaane ko waxambaane yi waxambaane yi ak janq ji ak jànq ji ba ñëpp daj ba ñëpp daj ne ba njëkkee ba maram ne ba ñu jékkee nag ba marax ne moom moom xaalimati njaxuma moom xaalimati njaxuma mii xar mi waroon a def xarfaan xar mi nga xam ne moom la waroon a rendi xarfaan mu daldi ko xamat mu daldi ko amat jaare ci buntu wàllab sëriñ bi jaaree ci buntu wàllab Seydina Aliou ba daldi ko nuyu daldi nuyu Seydina Aliou ba mu yëngoo ba mu yëngoo sëriñ bi ne ku mu sëriñ bi ne kooku ku waay mu ne ko man mu ne ko aali la mu ne ko man aali la de mu ne ko bisimila mu ne ko bisimila aali yow xar ma xaali dal di xar mi waaxu na ko waaxu na yu ko ne ko sekk dama lay ñaan ndox ne sekk dama lay ñaan ndox te booba kat te booba kat loolu li dugg na de loolu li dugg na booba taw yombut de booba taw yombut xattem nawet jeex na bu yàgg nawet jeex na bu yàgg xam nga gerte yu jàkk yi dañ daan gudd ne xam ne gerte yu jàkk yi de buñ ko jiwaan da daan gudd lool booba booba waxtu ba waxtu taw taw xar baax la xar baax la woon waaye lu jafe-jafe la mu jafe lool mu ne ko dama lay ñaan ndox sekk mu ne ko sekk dama lay ñaan ndox ne sëriñ bi na dënn sëriñ bi na tekk ba mu yàgg mu ne ko ba mu yàgg mu ne ko aali fu sa tool nee fu sa tool nee mu joxoñ ko ci bëjéer bi mu joxoñ ko nii ci bëjéer bi mu ne ko baax na demal mu ne ko baax na aali waaye bañ njëkkee bañ jël waaye bañ njëkkee ba fajar xar lañ lañ lañ seen melax ga lañ seen melax ga commencé ca wàll fa mu waxoon fa mu waxoon taw ba tooy ba taw ba tooy ba tooy foofale taw ba tooy lool ca tool ya te ak suñ ci dëkk te ak suñ ci dëkk ci dëkk ba am jaarama Seydina Ali ne jaarama Seydina Ali Seck ma